sëñ Mourtala mën nañ koo xam ci borom xam-xam sëriñ Mourtala mën nañoo wax ne ci ay réalisat ay réalisation am sëriñ Mourtala ci école ki nga xamante ne def na ko tey moo ëpp lu ñu produire ay ay ay boroomi xam-xam fii ci dëkk bi ci Touba ndax moom moo njëkk moo bokk na ci njëkk a créer institut Al Azhar dem na tey ba yegg ci université lu mu dee dee dee ay mën nañu ay junniy junniy junniy ay ndongo ñu ngi ciy jànge mboolem région yi Sénégal yi fépp foo dem rek di nga ko fa fekk loolu bokk na ci ab liggéeyu sëriñ Mourtada sëriñ Mourtada tamit gis ngeen ne bokk na ci ñi njëkk a créer fii ci Sénégal tamit ay bus transport rek Al Azhar transport ñi nga xam ne ñoo daan parce que moom daa gëmoon ne kat nit war ta yem rek ci am njàngum kese soo jàngee ba pare tamit war nga mën a am ci loo yëngu moo taxoon mu créé woon li nga xamante ne ñooy biis yi créé woon tamit ay industrie créé woon tamit lu mel ni ay tool kenn kër boo demee ca Rissa tool wala Ross Béthio da ko fay fekk ba léegi loolu léppoon ngir rek gëmoon ne kat l'islam mooy da nga war a waajal sa bopp ci xam-xam waajal sa bopp tamit ci wàllu liggéey ndax su fekkente ne nit dañ laa mënal rek dañ lay sañal moom na daa fexoon ba def ab liggéeyam yëpp mu dem ko jëfe ko ci ut ay tool utal nit ñi bu ñu amee xam-xam ba noppi tamit ñu am lu ñuy liggéey ndax bu loolu amee rek bu réer gi dañee ci réer am ci lu ñuy yëngu rek lépp loo bëgg a xeex moom maanaam dañ ko mën a xeex ci ndaw ñi ñoom xam-xam daal lañ ko xamee woon gis nga ko yemalewu ko woon Sénégal ndax Serigne Touba tamit daa ak liggéeyam daa yemaloon ci Sénégal kese moo tax Serigne Mourtala moo teggoon tànkam ci fépp foo xamante ne daal mooy universalité Serigne Cheikhul Khadim di ko fépp ci adduna bi fépp boo demee ci Amérique moo ko fa njëkk a wut jël ay maanaam alal ju bare bare jënd ko def ko kër tudde ko kërub lislaam ndax lislaam ka Sëriñ Tuubaa yoonam te wute wut ak lislaam lislaam rek lay woote lislaam du sell moom Sëriñ Murtala tamit loolee la amoon vision boobu la amoon ci ndénk ci njàngalem Sëriñ Tuubaa boo demee Italie boo demee Espagne boo demee ci mboolem Europe da ngay gis ne kat kër yañ fa tabaxee moom moo ko fa initié daan jël alalam ju bare bare daa ci def Sëriñ Murtala kenn xamu ko mu jën kër ku dëkk waaye lu mu mës a am rek da def ci daara mooy ubbi ay école di fay fay ko ay jàngalekat wala tabax ko def ko kër goo xam ne da koy jagleel mbooleem julit ñi day tudde ku dégg lislaam ndax bëggul sax ñu naan murit ak tijaan da daa wax ne këru lislaam rek sëñ Murtala sutura lañ ko xamee ak ku bari kersa lool waaw wax da yàlla baax lool waaye lépp lu muy defit daaw ko def ci ci en public moom daa bëggoon koo xam ne dafa bëggoon nëbbatu su daan dimbali nit kenn du ko yëg bu daan seet nit tamit daan kenn du koy dañuy jékki-jékki rek ñu ne sëñ bi ma nga fa waaye bëggul woon nit ñi di ci comme jamono tey ji nga xam ne dañ koy xel di fësal waaye moom doxul woon ci yooyu wax dëgg yàlla li mu gënoon a li bëgg rek mooy koo xamante ne day dal koo xamante ne lépp ku suturaal doomu aadama ndax it képp kooku mu saw ci nit di ko di ko wax ci moom kat da la naan ah da gis da koy weddi ngir ngir ngir sutaal dem même te loolu ñu koy tuumaal sax dana xam ne dëgg la waaye dangay gis ne da koy weddi ba mu sa défendre ko ba doole jeex ngir bëggul woon seen toroxal doomu aadama ci kanamam bokkoon na ci ay jikkoom comme jikko yi mag ñu baax ñëpp wax deel la njàng daal moo ko moom jaraloon na ko lu nekk boo xoolee ñu commencé yi génn di jàng ci école yi ba génn da gis ne kat comme nit bu ñu génnee ba am bac après amul woon ñun def ñenn ñi mu leen ay bourse ñu dem jàngi Maroc Égypte bu demee ci Euh, ci réew yu bari ñenn ñi nu mu doon def léegi nañ ñi nga xam dañoo bëgg a liggéey mu fexe ba am luñ jàpp moom daal looloo gën a mooy emploi des jeunes surtout moom bëggoon naa jàpp naa ne bokkoon na ci li ko gën a ñor donc vision boobu daal la amoon ci ci njàngalem bi ak it li mu gën a bëgg moom mooy tasaare njàngalem Serigne Touba ci fépp ci àdduna ndax Serigne Touba amul frontière Serigne Touba sénégalais bi kese du moo ko war a xam Serigne Touba du africain bi kese waaye Serigne Touba kat kéemaane suñu borom la boo xam ne fépp ci àdduna bi dañ ko faa war a xam moom na fexe woon ba dimbal jaam yi ba ñu xam kan mooy njaamaleñ sëñ Tuubaa loolu moom jàpp naa ne bokkoon na ci ay bëgg-bëggam mu ciy liggéey liggéey bu rëy ba dem bàyyi ñu fi yàlla na ko suñu borom fay bàyyi fi sëñ Maam Mor mu ciy taxaw ba fi mu ñëw tey tey ji wax da yàlla liggéey ba mu ngi koy continuer ba fi ñu tey ji waaw loolu fi ne bokk na ci lim daan nëb ndax fi ne xam nga loolu lim lu wër a la lu ama am la ñi ko jege ñëpp xam nañ ne saxal nañ ko waaye mos di génn fenn ba di ko wane xam nga kon nga xam ne loolu lépp bokkoon na ci yëg suturaam ak it moom bëggul woon nit kuy yëkkateeku bëggul woon koo xamante ne day yëg boppam gémmul woon loolu sëñ Mourtala guddi daawul nelaw ku ko mos xam ne rek dañuy siyaare ba 2 heures du matin nga gis ko muy jàng alxuraan bu fajar te boo yeewoo fekkaat ko muy siyaare waat bu gisee maanaam loolu bokk na ci li nga li ma gën a def remarque ci moom mooy wax du yàlla jaamukatu yàlla boo xam moo tax ñu tudd al mujahidul akbar ki nga xam ne doon jihaad ci lislaam ci àllam mosu koo fekkee dooleem mosu koo fekkee lépp lu mu moom it da ko daan def rek ngir taxawal baatub laa ilaha illallah muhammad rasulullah kon kooku mooy lan la ci ay sëriñ Murtala wax njaboot sëriñ Tuubaa moom seen relation ñoom ñëpp rek relation benn la relation mooy benn kilifa moo fi nekk sëriñ Murtala comme noonu képp ku fi nekk xalifa rek daana la tarbiyewu jébbal la boppam di liggéey di la jox waaye du mos a nangu tamit di ko fësal comme ni ko ñun ñi defee comme loolu bokk na discrétion bi ñuy waxaat rek nga xam ne daawul mos a taxaw mukk di ko fësal wala kenn waaye ñoom ñëpp it kenn ku ci ne rek moom kilifa nga woon ci moom ndax yenn ay magam lañu woon di la daan di leen daan siyaare daan liggéey lépp loo daan liggéey tamit ñoom ñëpp dañoo am ay relation particulier ak moom parce que kenn daawul def dara te ñëwoo diisoo ci ak moom gis nga ko boo jamono ji mu fi nekk moom Sëñ Saliou saa suñu yeggee ci cérémonie bi ci màggal gi da ngay gis ne Sëñ Saliou da koy da woo ñoom ñu ànd ñëw ci base bi daal di def cérémonie bi ba mu jeex lool lépp da gis ne kon kat moom moom ma ngi woon ci biir kat waaye ta doog daaw mos parce que nit moom kilifa kilifa daa ko woon kilifa a fexe sax di feeñ da daan bàyyi lépp rek ak kilifa yi ñu doxal ko kon xam naa wax Sëñ Mourtala comme ni ma la ko waxee ca commencement ba rek lu jafe la waaye tamit lu yomb la ndax li mu def moom fépp fu ñu gis rek mas na ko faa fépp foo xool gis ko fa ci réew mi ak ci bitim bari ànd ay tey ñoo xam ne tey dugg nañ ci lislaam te ndimbalal sëriñ Mourtalla moo ko waral kon yal na ko suñ borom dolli ay leer te taas ci barkeem ci barkeem sëriñ bu baax salaatul fi kulli sahrin wa fi safar